ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. alors tey sa teewaay fii duñ la ko laaj Youssou Ndour mooy tëgg fii mais lan nga gisee lu mu defee Dakar Arena première fois. Euh, il montre que tout est possible de toute façon je me rappelle quand on annonçait ça ñu bëree dañ doon wax ni dina fees ak du fees mais lii yaakaar naa vous savez bien que Youssou sax buy tëgg ñu naan dina fees ak du fees wala dina am nit du nit wala jaral na ko nit ñi wala jaralu ko nit ñi Youssou Ndour c'est une institution c'est une institution. C'est une institution e Youssou Ndour, c'est le des meilleurs Sénégalais de tous les temps. Donc je crois qu'aujourd'hui, lii dafa neex moom bu woote woon sax waxtaan yaakaar naa niñ dinañ ñëw. sa teewaay fii Lions yi ñu ngi préparé wu pour CAN bi nga déplacé wu ñëw bés bi. c'est important parce que peut-être que tey jii euh, maa ngi ci encadrement Lions yi ñoom amuñu temps wu génn. Et aujourd'hui, il y a un message que je devais lancer, l'union sacrée derrière cette équipe nationale-là, parce que Lyon, il y a beaucoup de gens Je me rappelle en 2002, nous, dans le Bercy, avant la Coupe du Monde, cette année. Et je crois que ça nous avait porté chance. Aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes... Euh, du, du, du, du, moment, du moment aujourd'hui, nous sommes Mais je crois une seule chose, c'est que ce message que je voulais porter aujourd'hui, c'est l'union sacrée derrière l'équipe nationale ñëpp nag ñu bokk ndey bokk bàyyi et on commence à sentir l'engouement de la Coupe d'Afrique et je crois que si les Lions sentent ça derrière je crois qu'on pourra faire une grande Coupe d'Afrique et moi je le dis et je le répète l'objectif c'est de gagner la Coupe du Monde d'aller au Cameroun l'amener pour les Sénégalais. Lions yi déterminés ñu pour gagner. bien sûr ils sont déterminés. Ils sont déterminés et ils travaillent tous les jours comme des, comme des, je peux dire comme des fous, avec tout le respect que je leur dois. Ils travaillent tous les jours comme des malades pour, euh, pour y arriver. Et je crois que Taïdi, Sasbigen Marc Taïdi, si 2022 c'est que le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique. Et je crois que tous les lions sont, con, sont concentrés et concernés. Covid ah, mais vous savez bien que Covid bi, euh, quel monde côté. Nagam si équipe Euh, si monde bi comme ay Barcelone Real de Madrid ñoo gën a am organisation si ñoom lay dugg assurément tamit fii li ñuy wax rek moo di espérons que euh, du graaw noonu et que euh, ku nekk jël aussi say matukaay parce que c'est important par exemple man tey jii maa ngi fii suba bu ma waree dem hôtel seeti leen damay dem def sama test ba mu pare ba mu wóor ni ma man je suis négatif ma dem seeti leen et ku nekk rek. Euh, respecter gestes barrières yi et c'est ça le plus important. question euh, blessé yi gis nañu ñu bëri blessé nañu ci ñi xaw nañu tiit un peu ci Coupe d'Afrique bi. vous Sénégal tollatul fu muy tiit naan euh, diw blessé na wala diw blessé na Sénégal rek moo am équipe bu nga xam ni personne ne i euh, personne kenn mënu ko remplacer amul fenn Sénégal rek moo am équipe bu nga xam ni tey di personne amul ku mën dem tey di ñu la preuve le dernier match Sadio n'a pas joué. on a gagné. Donc Sadio Bounioui, c'est un je crois que c'est ça l'état d'esprit de cette tanière-là, de la tanière. État d'esprit, moi, Koufi Djogerek, amène quelqu'un qui a sa place. Mais il y a des joueurs, ils ont dit, am nañu ay joueurs yu nga xam ne c'est des joueurs clés yu mel ne ay Sadio Mané on a toujours besoin parce qu'ils peuvent débloquer un match mais Kalidou Koulibaly je crois que il y a pas de problème Ismaïla Sarr on va le récupérer que sénégalais man mën naa leen dalal wax ne blessure bi gën a mag bi ñu am moo doon Krépin Diatta ñëwul et je crois que maintenant l'ensemble des joueurs sont là maintenant on veut sentir seulement nos supporters derrière pour aller gagner la CAN.